dégg nii parce que dañ koy écho war a da ngeen a eh, bi nag ci bul la parce eh. bi dafa bëgg a wax sibri di nga wax di nga wax may kenn la waneekum waaw dañuy noppi xam nga yow demal nag wax léegi nii waxuñu fi indi li ngeen ñu def de Sénégal xam nga non man ah. comprendre ma quoi man non non ah, ah non li ma jàmm taxaw xaar euh, ba pare na dama lay wax beneen affaire boo xamante dafa xew Apollo Sodia patience <laughs> ah. waaw non daf leen dànk rek surprise moom waaw léegi trois. tërërëm. tërërëm. Abdoulaye. li baax na doom voilà. mais am di li baax na Fall. waaw baax na sunu baay Abdouraas. ndeysaan oh, kii kii di Abdouraas moo génnoon ci télé du gàtt ci télé. ndeysaan wala gisee clip bi clip boobu loolu daf maa marqué. ndeysaan nga def sa clip ndeysaan. génn si écran télé bi. lu mu ci woyatee woon sax. woye si nguuri xuri. du boobu du boobu. yaa ngi jaxase ma jógee ñu naan ma dof bi. ndeysaan dof ma bëggee la ma tooñ. ndeysaan sama diggante ki ma bëggee yàlla laa koy seede. ndeysaan su yafaayal ma mbëggeel la ma toon dus ki ma bëgg ma tukkee la yu xalaat niw fu ma toog di la waxtaane sama pili faar mu di yow seeri de mu kër su ma oh. ki ma bëgg yàlla koy seede Eh, yow eh, jour spectacle bi. il faut yow ñu jox la ñu jox la ñu jox la premier partie bi. dan la sant yëgle. day fenn organisation waaw non non maa jël sama engagement wax Clara. non day di nga jëlee ay décision lu nekk damay jël décision man maay xaru jël décision bi. validé parce que validé. Clara kii dama bëgg. nga nga nga nga nga jàppale ko ah. kii dafa am benn kàddu bu mu wax boo xam ne dafa war a ngaan ba samay nopp waaw. xam nga Abdourahmane gëj nañu ko gis. waaw mhm. nee na dañ ko dëddaleeg musique. Ah. ah ah te dafa. waaw du ko doo ko may mu nuyu. Eh. nuyoo du fi am day. nuyoo amu fi day enchaîner directement waaw tey Adama Fall nekk fi rek bu fekkee da nga jël ay. non nuyoo moom mënut a ñàkk nag euh, da nga da da da ngay réglé dégg nga li ma la <laughs> yaa ngi dégg nga mel ni toll nii. Eh. waaw na nga réglé. na nga réglé na nga réglé. waaw mel li nga mel bi ba ëppal nga. régleel te sa reetaan yi ne Sénégal gi mu ne sa reetaan yi na nga ko wàññi. man gëj naa xaqataay de. yaa ngi xaqataay. sama yaay bi ma woowee yedduma ba tey laa arrêté. Ah, waaw action oh, action. bon euh, maa ngi sant yàlla bu baax. ndeysaan. di julli ci Seydina Muhammad. sallallahu wa di ñaanal kilifa diine kilifa aada yi ñu yàgg fi lool te wér. Ah. waaye di nuyu suñu yaakaar suñu yoon Cheikh mu Mountakha mu yàgg fi lool te wér di ñaanal sëriñ Moustapha Mbacke moom sëñ Mamour Mbacke falilu sama sëriñ mm. mu yàgg fi lool te wér mm-hmm. waaye di nuyu sama mbokku xaalpulaar yëpp. Mm-hmm. lawbéy Sénégal yëpp maa ngi di nuyu. Mm-hmm. di nag vraiment invitation bi am di. Mm-hmm. Euh, di kontaan ci yow am di. ndeysaan yow moom vraiment dafa am fu ma la teg. dëgg la moo tax euh, émission yi ma gën a fonk émission bi da cee bokk. te rawatina euh, dañuy wax naan comédien mais comédien yéen. ku leen yéen maanaam ku leen amul da leen war a wëri ndax ndax ndax yéen da ngeen di faj dangeen di faj. yéenay faj stress yi yéenay faj feebar yi. yéenay soulager doomu aadama yi moo tax émission bi dafa doon émission bu doy waar euh, di am mbégte rek teewaay fii euh, waxtaan ak sama fans yi ñi nga xamante ne ñu ngi may bëggee di ma tiitaroo te bëgg a gis Abdourass duñ ko mën a gis tey ngeen way ma vraiment avantage bi tey mhm. du ma def lu dul kontaan di ñaanal 2STV yi mhm. ak caméraman yeeg réalisateurs yeeg yëpp di leen jaare bu baax di am mbégte mhm. di wax na nag am di Abdoulaye mi nga def foxloo daal maa ngi nii. jeex na léegi nag Doucouré la euh, ñuy bàyyi question bi rek mu doxal anatana. xam nga Abdoulaye dafa ñëw dugal ñu si benn benn benn benn bërëb. waaw. loo xam ne sénégalais yëpp bëgg waaw. mu toj Sénégal ba foo romb. bu ma jugee ñu ma dof bi ngay dégg. ñu jékki-jékki Abdoulaye fi mu duggee ci fi mu jugee ci duggee ci télé bi. ak fi mu génnee ci télé bi ak bi ñu gis Abdoulaye sama kañ la. ñëwal waaw da ngaa jàpp koñ. wala da ngaa dugg ci sale ba yoon. ñëwal ñëwal Abdoulaye lan la lan la. waaw en fait damay sant suñu borom bu baax xam nga da am léegi loo wax. waaw hmm. euh, Abdoulaye dañ ko dëddalee musique man musique lañ ma mooñaale. nga ni. waaye hmm. dama judd suñu borom def ma musicien. Hmm. à l'âge de neuf ans. ma bokk nag ci askanu lawbe yàlla dimbale ma may ma aar. en fait dama naan aar man sama yëf la quoi. parce que loo xamante ne en fait euh, à l'âge neuf ans nga ko tàmbali. xam nga màggaaleeg moom boole koog liggéey. ba suñu borom. yëkkati ci sa tur loo xamante ni mosoo ko xalaat mhm. kon yaakaar naa ne vraiment man dama jàpp ne musique lañ ma moo ñaale mhm. kon man mosum du ma mën a bàyyi musique mhm. waaye il fallait nag ñu boole ko ak leneen parce que foofu la réew mi toll voilà li nga waxee dëgg la parce que dama dugg ci télé bi génn ci tele bi <laughs> jékki-jékki waat waaw géré fi nga du nguur nguur nguur nguur. waaw nga dugul ci télé bi mais est-ce que doo nga duggaat ci télé. waaw nga génn ci télé waajal leen di lu day waar. parce nga génn télé nekkul yéen donc ko hmm. parce que même internet yeeg réseaux sociaux fu ne. Hmm. ñu ne Abdoulaye daal bu duggee télé bu léegi génneegul télé bi. Ah. léegi nag Abdoulaye génn na ci tele bi. Hmm. te incha allahu rabbi ñu ngi sàkku daal ñaan ci kilifa diine yeeg aada yeeg affaires yeeg xarit yeeg yëpp. ñu ñaanal seen doom Abdoulaye parce que man dafa am fu may woyee am fu ma waxee mooy ci xam-xam laay wooyee maanaam maanaam ah, en fait boo xoolee li mu jot a génne warka la macha allah sama premier album lépp tem tem la nga xool trahir xuri euh, ak ay cax quoi en xam nga woy woy euh, woy wax la ju ñu neexal taasu wax la juñu juñu ju ñu xorom dégg wax ji mais man yàlla def ma cëraleel samay parole yu bari boo ko dégloo samay woy luy jëriñ la. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. kon euh, man famille boobu ma ma téye woon. Mm-hmm. du mu mos bàyyi sama àdduna. voilà. mais bëggoon nañ xam aussi. boobu yàgg na parce que loolu je me rappelle boobu xale laa woon. boobu ba tey lan moo tax nga def stand by te yaa ngi woon ci yoon. mooy mooy waaw non non c'est-à-dire non non xam nga man dama nekk xale. dugg ci aar teel a dugg ci group te avant mooy dugg ci groupe sax Sénégal xam nañ ma ndax man damay faral di wax ne Diourbel laa juddoo mais Kaolack laa débuté sama art. Hmm. yaa ngi dégg te ba ma koy débuté. Hmm. dafa metti woon trop parce que samay parents ànduñu ci woon. Hmm. parce que amoo leen koy woy quoi. ah waaw c'est ça man sama famille man rek maa ci woy. mais parce que don la ci man. don la ko raamaale quoi. waaw voilà dama xàmmee rek woy. day sànn. dama xàmmee rek way ok léegi nag ba euh, pare nag am ci amour bëgg ko mhm. di ko def di ànd ak ay ndaanaan yoo xamante ni ay géwél lañu mhm. man tey jii tool tool la benn moment boo xam sax maanaam buñ ne Abdoulaye Géwél la sax ko bëgg gu ma ko bëggoon di fréquenté géwél yi def leen samay m tout temps ci ñoom lay nekk ay daayira xaadir tey jii boo ne kaw Kaolack boo ne daayira Alaaji Pambay Tabala mu sëñ Fallou man foofu laa njëkk a débuté kon yow da nga naan woy ay tabala waaye man xoolal lu ne def naa ko. mais yow yow sa concurrence sax mu soo mënoo ko woon